أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي أندا تجين téere borom bi subhanahu wa taala toll ci suratul baqara di jël tey ñaari aaya yi ci mujj muy aaya 288 85 ak 286 mu nekk ñaari aaya yu mujj ci suratul baqara di sant yàlla subhanahu wa taala ci loolu bu ñu mayee ñu fekkee jeexintalu saar bi ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla nangul li ci mat li ci am ay njuumte yal nañ ko yàlla jéggal ñaari aaya yi ay ngëneel yu rëy ñu ngi ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bokk na ci ngëneelu fin wu baqara mu ne xadis yu baree bari rot na ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñaari aaya yi nekk ci fin wu suratul baqara al ayat min axiri suratul baqara min kunuzin taxta al arsh lam yutahunna nabiyun qabli yonent bi yàlla yónni woon ci ñun nee na ñaari aaya yi dafa bokk ci ndàmba dafa bokk ci ay màng ay koom yu nekk ci suufu arsh yonent bi nee na yàlla mësta jox benn yonent xéewal bu toll noonu beneen xadis bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na képp koo xam ne man qaraa haatayni al aayatayni min aaxiri suratul baqara képp ku jàng ñaari aaya yi nekk ci feemu baqara fii layla yaa ngi ko jàng ci guddi yonent bi nee na kafataahu ñaari aaya yooyu dinañ la doy boroom xam-xam yi doon ñu jàppale dimbali ñu pour teg ñu ci yoon pour ñu xam loolu yonent bi wax dinañu doy lan la ñenn ñu ne ay min qiyaami leyli dina la doy jarul ngay naafila guddi ñeneen ñu ne kafataahu min charri shaytaan dana la doy rek kiiraay seytaane du la laal aaru nga am nga sécurité seytaane du la jege seytaane du am ci yow benn yool fala yakunu lahu alayhi sultaan seytaane du am ci yow benn kàttan pour jax-jaxee la ci guddi gi kon bu ñu yemoon ci ñaari hadis yooyu rek danañ gis fin wu baqara kon ni mu amee importance ñaari aaya yi ñu ngi ciy jëlee juróom-ñaari mbir bi ci njëkk mooy taqriru arkaanul iman aaya yi dañuy saxal ponki ngëm yàlla ngëm yàlla ñaata keno la kado yi ñëw naa dinaa ko indi dama fàtte soxna si nekk Canada yónnee nañu ay mont incha allah dinaa ko indi mardi ci kàttanu yor borom bi ah waaw ngeen ñaanal ko bu baax a baax a baax a baax moom moo ñuy yónnee cadeau yi fii chaque instant yónnee waat nañu ay mont ngeen ñaanal ko ponki ngëm yàlla ñaata la ah juróom benn kon aaya yi dañuy saxal keno yi arkaanul iman al imaanu billah wal malaika wa kutubi wa rusuli aaya yi dañuy saxal ngëm yàlla gëm malaaka yi gëm téere yi gëm yonent yi loolu mooy lu njëkk lu ñuy jëlee ci ñaari aaya yi ñetteel mooy wujubul iman bi kaafati rusul aaya dañoo ñëw di ñu soññ pour ñun ñu gëm yonent yëpp du ñu tàqale benn yonent yonent yëpp la ñuy gëm ay dañoo ñëw di saxal loolu al iman bi kaafati rusul waaye ay dañoo ñëw di araamal gëm yenn yonent bàyyi yeneen comme ni ko yenn ñenn ñi ci di defee ni ko nasaraan yi defee ci Isa kese yahud yi def ko ci Muusa kese walla walla walla loolu dafa araam ci sunu diine ñun du ñu tàqale yonent yi ñetteel mooy wujubu taatullahi wa rusulihi topp yàlla ak topp yonentam yi dafa war ay day ñëw di saxal lool wa taslimi wa rida bi ma shara allah ay dañoo ñëw di saxal ne ab julit dafa war a jébbulu ci yàlla waaye dafa war a gëm dogalu yàlla nangu lu yàlla teg ci kawam loolu dinañ ko jàng ci ay yi bi ma shara allah mu nangu lu yàlla yoonal ci kawam yàlla rëdd ko ne ko nii laa bëgg nga dundi ak yonentam alayhi salaatu wasalaam waaye dafa araam wa xurmatu raddi shay'in min zalik dafa araam ñu ne la yàlla nee na nga naan ah comme li ma dégg fan yi ci rajo bi comme am na benn député bu ne dañoo war a indiwaat peine de mort nga gis organisation boobu tudd ONDS naan non ku rey nit nan la rey loolu moom problème rek lay yokk réglewul dara loolu ay fan la yàlla moo ne walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaabi laallakum tattaquun ku rey nit nan ko rey yàlla leen bu ngeen ko defee rek dund kaso yi bu nu reyoon ñi fa nekk budget bi sax mën naa dugg ci courant bi ñi rey nit Sénégal ñëw leen reyoon kenn dootul reyati nit say leen dëkk yi ko am ne fi koo waxal léegi rek mu gàddu jaasi wala mu gàddu paak koo waxal rek day uti arme te bu la reyee dara du ci mujj fii ñi ñu rey ñooy perte ku ñu rey rek perte nga Sénégal waaw parce que ki rey dañ koy tëj deux mois génne ko boo amee avocat sax bu mun a wax du du tëdd waaw loolu musiba la ci am réew kon peine de mort bi ala kulli haal dafa war a ñëwaat même bu dul dara sax même buñ ko deful ngir lislaam sax ñu def ko ngir aar bakkani bopp te yàlla lim ci wax mooy dëgg mooy bu ngeen ko defee dund walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaabi laallakum tattaqun bu ngeen ko defee dund kenn dootul tuur bakkanu nit kenn dootul tuur deret kenn dootul rey nit kon du jaadu ab julit ñu ne ko yàlla nee na wala yonent nee na mu mu ne muy muy weddi loolu naka ngay weddee àtte yàlla ba pare nga ne yow da ngay julli soo xasee wedd benn àtte bu yóbbu nga xam ne yow génn nga ci lislaam ay waa droit de l'homme ay waa ONDS ñooñu ñooñu dañoo génn ci lislaam bu yàgg dañoo murtat ñoom ñëpp ñoom ñëpp dañoo murtat jullit saa yiñ ko ne yàlla nee na mu ne d'accorduma ci nekkatoo jullit leneen nga xaw ma xam nañ ko xaw ma xamuñu ko kon dafa war ay dañuy jàngal ne dafa war topp yàlla wujubu taatullahi wa rusulihi wa taslimi wa rida bima sharaa bima sharaa allahu wa rasuluhu wa xurmati raddi cheyin min zalik aram na ci ab julit ñu ne ko yàlla nee na lii lañ war a def mu naan waaye wala nangam nangam di ci teg daal ñeenteel mooy rafu lxaraji an hadihi l umma rahmatan biha yàlla daf ñoo dindi lépp lu ñuy sonal ñun xeet wii yàlla lim ñu sant coono amu ci maa jaala aleykum fi diini min haraj yàlla nee na diine ji islaam bi ma leen sant ngeen dund ko luy sonal nit nekku ci amu ci lenn lu nit di wax ne lii coono moo ci nekk diine islaam indiwul lu nit naan cam lépp suñ ko waxee da ngay xam ne dafa normal li mu digle def leen da ngay xam ne lii nit loolu rek la war a def li mu tere ne bàyyi leen da ngay xam ne lii dara baaxu ci wax leen benn bu lislaam tere ngeen ne waru ko woon tere wax leen ko sàcc xam nga sàcc kiñ ne kiñ ne noonu nañ bàyyi nañ ñu sàcc nañ sàcc alalam lu muy wax sàcc bu ngeen gisati rey leen ko gis nga lépp lu lislaam ne baaxul rek lislaam bu ne dara baaxul yow mii lay aar yow bu ne sàcc baaxul yow mi lay aar imaginel bu ñu sàccul sa alal tey xoolal li ñuy fere ci alal pour am sécurité bu kenn sàcc suñu alal loolu am na fu mu xejoon lan moo waral buntu weñ lan moo waral giri ah lu waral miir yi ñuy def xottu butel lu waral gardien lu waral xaj ci kër gi yooyu yëpp nga def ko te ba pare amagoo jàmm de da ngay def kër gi tabax bu rëy def fenêtre yi weñ porte yi def ay giri def alarme mais du tere foog nga indi gardien teg gardien bi sax foog nga foog nga jox ko arme amatuñu sécurité wala waa ji li mu financé ci kër gi yëpp terewul foog mu jël garde di ko fay bu weer dee te bu doon lislaam la mun ngaa bañ a def ci buntu kër gi sax bunt mën ngaa bañ a def ci buntu néegi bunt da ngay tëdd di nelaw ba xandoor sa alal kenn du ko laa kon xoolal li nga financé fii yëpp nga yokk fan la mënoon duggaat kon lislaam mooy dëgg nit ñi waroon nañ koo jéem rek dund ko comme jéem nañ ko ci socialiste yi demuñ jéem nañ ko ci libéraliste yi demul waroon nañoo essayer lislaam tuuti ñu xool ay weer rek ñu xool mbokk yi islaam daf ñu yëkkatil ay coono ak ay jafe-jafe lépp loo xamante ne coono la yàlla digaluñu ko lépp loo xam ne jàmm la ak noflaay moom la ñu yàlla sant juróomeel adamul muaxaza bin nisyaan awil xata yàlla ci yërmandeem ak mbaaxam du ñu jàppe bu ñu juumee wala ñu fàtte gis nga suñu borom soo fàttee loolu dañ koy jàng ci ay boo fàttee def loo warta def wala nga juum yàlla du la ko jàppee faman nasiya képp ku fàtte wa akala aw shariba wa huwa saim fala isma alayhi ci weeru koor bu dul weeru koor nga xëy woor nga juubu ci diggante bi lekk wala nga naan da ngay continuer yàlla du la ko jàppee fala isma alayhi amoo bàkkaar ci loolu nga def aw axtaa fa qatala fala isma alayhi wala sax nga juum rey nit dangaa juum amoo bàkkaar gis ngeen rey nit ni mu grave soo juumee nga def ko amoo bàkkaar tey boo amoon ak sa doom problème nga koy dóor yàlla def mu dee amoo bàkkaar ci loolu nga def parce que da nga ko doon da nga ko doon wàññi rek mu ngor boo doon rëbb gis petax wala loo war a rey bal bi romb ko dem rey nit amoo benn bakkaar gis ngeen loolu dañ koy jàng ci aaya yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ci xadis yàlla yëkkatil na ma sama xeet rufia an ummati alxata wa nisyaan wa mastukrihu huwa alayhi yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla yëkkati na ci xeet wi ñett suñu juumee bu ñu fàttee ak lu ñu leen force def leen bu ñu ñëwee teg pistolet sa bopp ne la naanal wala defal nangam nga def ko wala weddil yàlla nga weddi amoo bàkkaar wala nga fàtte heure julli jot nga fàtte julli wuloo ko ba waxtu yi passé sa xel da ngay dem julliwaat amoo benn bàkkaar kon sunu borom rek lim ñu sant mooy dëgg juróom-benneel mooy al afwu an hadasi nafs li sa xol bi jax-jaxal yenn saa yi mu koy wax ci loo xam ne jaaduwul ci ay xalaat loolu yàlla subhanahu wa taala dina la ko jéggal maa lam yatakallam al mumin aw yaamal feeg jullit bi loolu xal mi xalaat xol bi di ci tëf-tëfi feeg waxoo ko wala jëfoo ko yàlla du la ko bindal bàkkaar mu ngi foofu rek di tëf-tëfi feeg nekkul nag wax wala jëf kenn du ko bind kon ci lislaam lu ñuy lu ñuy lan la ñuy bind mooy jëf yi ak wax yi jëf yi ak wax yi rek ñu bind ko waaye bu fekkee xalaat la wala luy rëngi-rëngi la ci xol nekk fa ba ñu génnul kenn du ko bind tukulóor dañ naan wóoyu ko mbaree ma won koo xaali kola mbaree ma won koo mii ci kenn mus koo gis ñun ñooy tukulóor fii mën nga traduire loolu mbaree ma won koo mii ci ah mu ne rey leen ko dafa am lu mu xalaat nee na loolu kenn mës koo gis rey ndeel ko dafa am lu mu wax waaye dafa am lu mu xalaat rek rey leen ko ah loolu wax dëgg yàlla moom moom kenn mës koo gis nag moo tax gis nga suñu borom kenn du la bindal xalaat wala lu rëngi-rëngi loo xam ne mu ngi sa xol lu dul nga jëf ko wala nga wax ko mbokk yi juróom-ñaareel mooy taalimu haza dua fin wu baqara bi ñépp a ko war a mokkal est ce que damay laaj jàkka ji ndax ñëpp mokkal nañ amana rasul pertanga la de ci jullit bu ko mokkalul pertanga la de ndax yonente bi ne kunuz kanzun min kunuzil janna amana rasul bi muy wàcc moo fatiha beneen porte lañ jaar jaaruñu fi alxuraan bi yëpp jaar beneen malaaka moo ko indi ndax seen martaba nu nu fooree bépp aaya bu ci yonent bi jàng ci ñaan gi yàlla nangu na ko kon lii war naa nekk ci xolub jullit ab jullit warta tëdd te jàngul amana rasul yonent bi nee na ku ko jàng ka fataahu ka fataahu min qiyaamil leyli aw min charri shaytaan kon nag xéewal gu réy ngi muy amana rasul nee na taalimu jàng haza du'a wa istijabati du'a bihi nee na ay bokk na ci ay xéewal ma ngi njëriñam yàlla day nangu ñaan yi jagleel na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ay sahabaam jàng ngeen xadiis yonent bi alayhi salaatu wasalaam li mu wax ci ko ko jàng guddi dina ko doy muy amana rasul buñ ñëwee ci texte aaya yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يقول المولى آمن الرسول نيسان جسنا بين ديريكتور جنرال بو خامني ديريكتور جنرال تلفزيون دنج كو داق ndax aaya bi borom télé bi woo na ko nekk waaw nan la ñuy def ba télé bi dëgër liggéey bi avancé affaire yi télé bi raw ci télé yi mu ne ko ah loolu kay yomb na xanaa déggoo yàlla ne amana rasul mu ne ko i mais boo yow da ngay référé ci alxuraan dëkk non waaw demal quoi demal bàyyil bàyyil bàyyil bàyyil waxtaan bi quoi demal ku dugg ci bureau bi rek mu ne ko mais yéet mais booy bi ma naan ko télé bi nu ñuy def mu naan amana rasul quoi non c'est pas possible quoi télé bi ñuy def ba mu avancé mu naan ma amana rasul dégg de ndax quoi len de Sénégal doy na war gis leen nit ñi nit ñi dem rek waaye bu leen xam lan lañ denc ci seen xol yi loolu mooy sunu problème réew mi du hasard mu mel nii de te dañuy sonn rek du hasard réew mi yàlla di ko mbugal nii du hasard de kayfa ma yakunu yu walla aleykum nu ngeen mel rek ñu gouverner leen noonu yonti moo ko xale bi ndeysaan bi mu may nettali lan la ko bëggoon wax ci bi mu ne ko amana rasul ne dama ko bëggoon wax ne nit ki lu mu gëmul rek du sotti xatta yonent bi lañ ko jox daf ko gëm mu réussir nee na comme yow jox nga ma lii su ma ko gëmee liggéey ci day dem nee na loolu laa ko bëggoon wax ma ne amana rasul rek xamu sax fu ma jëm mu naan moom waaye ma naan la lu ñuy def ba liggéey bi baax nga naan alxuraan wala te jullit télé bi dañ daan def bu ñu xëyee suba teg mag fajar bu ñu jullee pare teg kaaba gi quoi mu naan waay mais may mi mi mi mi mais ñun am nañ ay jàkka teg leen suñ jàkka yi mais màkka màkka màkka màkk waa ji loolu loolu ndeysaan mu dee ñu teg màkk bis bu mu dee ñu xëy rek teg màkk ba huit heures ñu doog a annoncé ne dee na gis ngeen waaw mu ngoog léegi bu demee na wax ak yàlla ndax amoon na rasul di baax na wala baaxul yàlla nee na amana gëm na saddaqa dëggal na jaasiman dëgg gu wóor bi sixatil xabar ci wérug xabaar bi walam yataraddad sikki sàkkawul aw ya sukk fii xattu amu ci benn sikki sàkka dafa gëm gëm gu dëgg gu wóor mooy amana kan ar rasulu muhammad sallallahu alayhi wa sallam lan la gëm bi ma unzila ilayhi la yàlla wàcc ci moom amu ci sikki sàkka dengi dengi wu ci amu ci la benn toq toq daf ko gëm ba mu ne keng ne alquran la ci allahu subhanahu wa taala la jógee loolu la ab jullit di def jullit bu gëmul alquran lu muy gëm loolu moo ñuy di problème ay jullit yoo xam ne boo leen ne yàlla nee ñu naan non mais est ce que amul leneen lu nu mën a wax place bi lu dul yàlla nee na fu jëm su fekkee 95 pour cent musulman ci Sénégal bugguñu ko leen ne yàlla nee na yenn saa yi nga dégg conférence ñu ne non conférence bi moom vraiment dafa xaw a kii quoi. sëñ mais boo boo waxoon sax sëriñ bi wala diw affaire yi xaw a mais yàlla yàlla yàlla kese rek. xoolal nit bu demee ba du bëgg ñu tudd yàlla bu jullit demee ba du bëgg dégg yàlla mais kooku est-ce que jullit la. bëggoo ñu ne yàlla nee na yow daal leneen rek lu nu la wax mun na. allahu akbar alxuraan moo wax dëgg. wa iza zukira allahu wahdahu isma azzat qulubu alladina la yuminuna bil axira buñ ne yàlla kese xolu gaa yi gëmul yàlla dañuy lemu banku fa iza zukira min dunihi fa iza hum yastabsirun waaw day même assemblée boo ne yàlla rek ñu ne non non non buñ kenn waar fii du jàkka ah fii du jàkka non mais mais non mooy non non da ngay gis gaa yi commencé quoi te ku nekk mën nga ne nee na ñu noppi ah boo ne Karl Marx nee na boo ne Lénine nee na Descartes gaa yooyu seen sëriñ yi koo wax nee na ñu ne non mais kii jàng na de foo jàng yow mais boo nee yàlla nee na rek gaa yi mer wala yonent bi nee na wala lislaam rek seen xol yi di bañ ba pare ñu ne jullit lañ yàlla jégal baal na ne amana rasulu yonent bi gëm na bi ma unzila ilayhi yàlla wàcce ci moom min rabbihi mu bàyyeekoo ci boroomam gis ngeen lépp lu yàlla wàcce woon ci yonent bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ko gëm ndax moom rek la yàlla ne déedéet wal muminuuna ak way gëm yàlla yi mu àndal muy saxaaba yeeg ñu mel ni ñoom ñoom ñëpp yonent bi ak saxaaba yeeg ñëpp gëm nañu yàlla gëm nañu li yàlla wàcce ci ñoom wal muminuun yàlla yemul ci loolu sax mu ne kullun ñoom ñëpp waaw lii lii seede la de est-ce que ñun seede bi am nan ko moo tax aaya bi rek fenloon na si ay ñu naan ginnaaw yonent bi Aboubacar dafa weddi dafa murtat Omar daa murtat Ousmane daa murtat la ilaha illallah ay juróomi saxaaba daal lañ bàyyi nee na ñi ci des ñëpp baaxuñ yàlla bu muy wax fii dafa ne kullun kan la bàyyi am na ko mu bàyyi ci ñoom kullun ñoom ñëpp amana billahi gëm nañ yàlla yemuñ ci loolu wa malaaikat yi gëm nañ malaaka yi wa kutubihi gëm nañ téere yi wa rusulihi gëm nañ yonent yëpp ba pare ñoom dañ naan laa nu farriqu du nu tàqale bayna ahadin min rusulihi diggante kenn ci yonent yi benn benn waaye dafa laaj dafa fekk benn labbe ak benn yahud di xuloo yahud bi naan ko ñun ñooy dugg àjjana nasaraan bi naan ko ñun ñooy dugg àjjana yéen du ngeen dugg nasaraan bi naan ko ñun ñooy dugg yéen du ngeen dugg julli bi ne leen gaa leen maate leen xaw ma lan la de waaye yéen bu ngeen duggee ñu dugg yéen nasaraan yi yéen yahud yi bu ngeen duggee ñu dugg ñu ne ko yow lu tax mu ne ñun gëm nañ Isa mooy seen yonent gëm nañ Moussa mooy seen yonent ñun nag bu ñu duggee yéen seen problème wóorul parce que yéen gëmu leen Muhammad gis nga jullit yi wax dëgg yàlla àdduna bi warul woon am problème jullit bi moom gëm na Isa xoola jullit li ñuy seedeel Isa la lañ koy seedeel ne moom jaamu yàlla la abdullahi wa rasuluhu yahudi lan lañ wax ci Isa doomu njaaloo la nasaraan yi seen bopp lan lañ wax doomu Isa doomu yàlla la xoola jullit ñoom ñoo ne jaamu yàlla la yonent yàlla la ñoom rek ñoo ko teg te xoolal ñoom la nasaraan yi gën a bañ kon ngeen xam ne mbir yi jagleel la xéewal la yàlla moo nu ko jagleel sunu borom subhanahu wa taala mu ne ñun dañ naan laanu farriq ñun duñ tàqale duñ tàqale tey boo duggoon ci kër jullit yi di lim ñu fi tudd Moussa di lim ñu fi tudd Isa ñaata lañ di lim ñu fi tudd Mariama ñaata lañ kon kay ñii waroon nañoo bëgg ñun seeni mbokk lañ waroon doon xoola jullit bi tuddee doomam Mariama tuddee doomam Isa tuddee doomam Muusa tuddee daanaka yonent yi yàlla wax ci yahud yëpp jullit ñi tuddee lañ ay doom day gis Ilias ah Yahya Zakariya Daawud Yuusuf ñu tur boo gis gaa yi tuddee nañ la jullit di tuddee nañ la kon kay ñun jullit kay mooy indi jàmm ci kaw suuf kon waaye ñoom ñi tàqale naan ñii la ñii la kee la kële la ñiñ koy ñoom ñoo indi tàqali ko ci àdduna waaye lépp lu ko waral mooy jullit yi ñoo xamul seen bopp rek jullit doo tàqale yonent yi waaye yonent yàlla muhammad la la yàlla jox sharia am moom ngay dund amul benn yonent loolu ñëpp ngay gëm loolu ñun rek ñun ñoo ko am laa nu farriqu duñu tàqale bayna ahadin diggante kenn min rusulihi ci yonentam yi moom yàlla wa qaalu ñu ne ñoom way gëm yàlla yooyu gëm yàlla bañ a tàqale yonent yi samina ñun dégg nañ wa ataana topp nañ gis nga ci suratul baqara bi ñu nekk yahudi ba ñu déggee lu ñu wax samina wa asayna jullit yi ànd ak yonent yi ba ñu déggee lu ñu wax samina samina wa ataana gis nga de ñeena samina wa asayna ndeysaan sami'na dégg nañ wa ataana topp nañ sami'na dégg nañ sama a fahmin dégg aji comprendre nit mën na dégg te comprendre nit yenn saa yi mu dégg waaye du comprendre li mu dégg moo tax hadis bi naan rahimallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha thumma addaha kama sami'aha fa rubba muballighin aw amina saami yal na yàlla dégg yal na yàlla yërëm ku dégg sama wax man yonent bi yal na yàlla yërëm ku dégg sama wax bi mu ko déggee mu mokkal ko bi mu ko mokkalee mu yóbbu ko jottali ko yonent bi nee na bëri na ku ñu jottali ku ñu jottali wax yow yaa gën a dégg wax ji ki la ko jottali dégg ngeen wax bi léeg-léeg nit toog di jàngale fekk ñi muy jàngal ñoo ko gën a dégg li muy def moo tax lu garaaw la fa rubba muballig am na kuy jottali ñi muy jottali aw amina saami ñoom ñoo ko gën a dégg moom mi koy jottali xoolal jibril mi ñëw ci yonent bi toog daan ne ko axbir ni anil iman yonent bi wax arkaani bu mu jeex mu ne ko sadaq sa ñoom ñaar kiy jottali kii laaj ak kii tontu moo tax ba mu ne ko yowmal qiyaam mu ne ko kii laaj moo ko gën a xam ki mu koy laaj gis nga ah saxaaba yi ne fa ajib na ñun ñu waaru ndax ñoom jëmm lañ gis rek xamuñu kii kan la ba mu génnee ba mu am maliyan fa labis naa maliyan fa qaala rasul ata ata ataarifuna mani saa'il ndax xam ngeen ki doon laaj ñu ne ko allahu wa rasuluhu alam gis nga maandu te saxaaba yi moo nañ ko daa kooku du diw waaye ñoom dañoo maandu woon yàlla ak yonent bi ñoo xam mu ne leen jibril la moo ñëwoon di leen jàngal seen diine ñoom amoon nañ amoon nañ xéewal de di toog di gis kenn koo xam ne danaa la jibril la allahu akbar ku gis jibril ci say bët gis yonent bi ci say bët lu fi des ah moo des ñooñu nag ay nit bu ñu taxawee di leen wax ci ñoom wax ju bon nga xam ne àdduna bi moom am yàlla sàmm yemuñ rek ci dégg waaye wa ataana dañuy topp waaw li ñu dégg muy dëgg dañ koy topp yow yàlla xufraanaka sa njéggal nag la ñu yaakaar nga jéggal ñu rek rabbana yow sunu borom wa ilayka ci yow almasiru la ñuy dellu wu ñu wiiri wiiri rek jaari ndaar almarja rujuuna ilayka ya rabbana faghfir lana suñuy delluwaat te ñun ñëpp danoo war a gëm ne yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg dañuy delluwaat suñu borom dégg ngeen sax ñu ne ku dégg nit faatu na lay wax inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ñun ci yàlla lan bàyyi ko woon ci yàlla la ñuy delluwaat jullit bu gëmee ne day delluwaat ci yàlla dundam day jag yow boo gëmee ne da ngay dund da ngay dee boo dee da ngay dajeek sa borom boo dajeek sa borom daf lay laaj lim la santoon loo ci def soo defee lim la santoon mu fay la soo deful mu mbugal la ki gëm ne bu nekkee ci société bi di liggéey bu weer dee dañ koy fay bu dawee ah dañ koy dagg ci salaire am wala kenn du ko fay est-ce que dina daw waaw lu tax ñu nangu loolu ci àdduna nanguwuñ ko àllaaxira lu tax ñu nangu àdduna bi ku liggéeyul kenn du la fay ñu la ba pare ñu yàccaaral àllaaxira ñu ne ñu ne foofu moom garaawul amul problème ah amul problème jarul julli de julli de jaru ko yàlla du fay du fay julli xol lay fay xol war nga gis sénégalais yi seen diine ni mu ni mu oyofee fecc woy yuuxu daanaka léegi guddi doo tëdd lu dul di nga dégg ay rajo yuy yuuxu ah xaw ma seen koñ de mais man sama koñ am na musuma tëdd guddi lu dul damaa ngi dégg ay sabar ay nit di fecc 9h ba 1h ci guddi yenn saa yi sax ñu fanaan doo dégg yàlla doo dégg yonent doo dégg julli leen doo dégg woor leen yuuxu rek fecc rek ba fajar jot tax ban diine la loolu te yàlla mu ne jàngeen ci suratul araf yàlla mu ne alladina taxasu diinahum lahwan wa laiban wa garrahum fi diinihim ma kaanu yaftaruun xoola ñi nga xam ne seen diine fecc la ak po caaxaan kese ndeke am na ñu jàpp diine fo waaw ñun yàlla jubal wa ilayka ci yow sunu borom almasir la ñuy dellu borom bi nee na laa yukallifu llahu yàlla toggul nafsan bakkan illa wusaha lu dul la mu man la yaatu ca moom bu waxtu jox jote bu waxtu joxe jotee la nga mën lan la sant bu waxtu jaamu yàlla jotee na nga ko mënee lan la mën na nga lan la sant nga mën ko defee noonu defee ko noonu boo mënee julli taxaw taxawal soo mënul julli taxaw taxawal te wéeru soo mënu soo mënul loolu toogal te doo wéeru soo ko mënul toogal te wéeru boo ko mënul nag noo jullee baax na bu la yàlla santee koor wooral boo amee ngànt dogal bu ngànt li jeexee nga fay laa yukallifu llaahu yàlla tegul bakkan at taklif al iltizam mimma fihi kifla wa mashaqa yàlla tegul kenn kenn kenn lu mënul kon yàlla li mu ñu sant mën nañ ko julli suba ñaari rakk julli tisbaar ñeenti rakk takkusaan kazaalik timis ñett gee ñeent yàlla mën na woor weeru koor ah ak génne azak wala aji màkk ñun yàlla sant kon mën nañ ko ak yeneen ibaadaat yi mën nañ ko moo tax yàlla nañ def leen ko yàlla tegul lu ñu lu ñu mënul mu ne laxaa bakkan bi am na maa kasabat lépp lu mu def ci lu baax min xayrin lépp loo fàggu ci lu baax yow yaa ko moom waaye wa alayha dina tegu ci kaw mag tasabat lépp lu mu def ci lu bon li nga def ci lu baax yaa ko moom yaa ko liggéey waaye lépp loo def tamit ci lu bon sa kaw lay tegu wa alayha mag tasabat wa an laysa lil insaani illa ma saa kulli mri'in bima kasabat rahina ku nekk li nga liggéey rek loolu lañ la tayle saloo ko li nga liggéey ci loolu lañ lay àtte danga doon def lu baax ñu fay la lu baax fa man yaamal misqaala zaratin xayran yara wa man yaamal misqaala zaratin saran yara jeex na dafa leer nañ amul benn lëndëm borom bi subhanahu wa taala nee na rabbana yow sunu borom laa tuaaxisna bul ñu jàppe in nasina bu ñu fàttee ay yàlla bu ñu fàttee bul ñu ko jàppe aw axtaanaa wala ñu juum gis ngeen moo tax soo juumee maa nga fàtte yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla da lay jéggal même fàtte kon sunu borom bëggal nañ lu baax yërëm nañu soo fàttee sax kenn du la ko bindal bàkkaar aw axtaanaa wala nga juum rabbana yow sunu borom wala taxmil alayna bul teg sunu kaw isran ay jafe-jafe ay coono loo xam ne mënuñu koo togg yow yàlla bul ko teg sunu kaw taklifan shaqa teg bu metti lu diis yow yàlla bul ko teg sunu kaw yasqulu alayna loo xam ne day diis sunu kaw ah mu ñuy sonnal ba duñ ko mën a def yow yàlla loolu bul ko teg sunu kaw ñu ngi lay ñaan bul nu ko teg allahu akbar kama hamaltahu comme ni nga ko tege woon alal lazina ci gaa yi nga xam ne min qablina ñoo ñu jiitu woon est ce que xam ngeen ne ñi ñuy jiitu woon ñun li ñu am ñoo ñu amu ko soo moyoon yàlla dañu koy bind ci sa jë soo sa yére takkoon sobe ñu ne la xottil yére bi boo wooree doo soccu gis ngeen Moussa woor na 30 jours gémmiñ ngi changé mu soccu yàlla ne ko acca bismillah teg ci yeneen 10 jours moo tax yahud yi 40 jours la ñuy woor wala loolu moo koy indi ñun ngay woor di sangu di socc diw ba niin peñew ba liis ah sol say lay rafet nga génn mu nga mel ne dangaa reer dangaa añe ginaar fekk dangaa woor gis ngeen dangay woor ba pare di nes ne si tàkk ku la gis sax mën na sentir na kii kii de de boo gis kuy woor di deedeelu rek xamul koor yonent bi gis na benn waaye ndeysaan mu woor weex furtal bopp bi cuqaaral sikkim bi yaram yaa ngi yonent bi ne ko yow eh lu xew maa li araaka abusan lu tax nga ñëkk nii lu tax sa kanam gi lëndëm dama woor ne ko koor du mbugal mu ne dama woor yonent bi ne ko koor du mbugal de koor jàmm yàlla la du mbugal yéen yaa ngi ku ne man dama non bu ma wooree man nelaw rek bu wooree da ngay liggéey da xëy liggéey yi gis ngeen gars yi bu ñuy football duñu woor gis équipe nationale buy football ñu ne ñu exiger leen bu kenn woor bu ngeen ko gis allahu akbar wala ay liggéeykat ñu ne leen non bu leen woor ay liggéeykat comme ñuy gas tali yeeg yooyu nga gis tubaab bi ne leen fii ku fi woor ma dàq la nga gis gars yi ne la ah tubaab bi ne leen bu ñu woor de waaw comme mooy seen yàlla bu leen woor comme mooy seen yàlla mu ngeen ragal agaan ngeen ne bu ngeen gasul da ngeen di dee saxaaba yi woor di xeex badr badr ban way ban bis la woon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor ah kon nag daanaka xare genn wàllu xeex yëpp ci koor la ko yonent bi def waaw ñun nag ñu nekk fii sama waay ñun yàlla yërëm mu ne yow yàlla bul teg suñu kaw jafe-jafe kam comme ni nga ko tege woon ci kaw gaa yi nga xam ne démb ñoo ñu jiitu woon rabbana yow suñu boroom laa tuxammil naa bul ñu yenn maa laa taaqata lanaa bihi lu nu àttanul gis ngeen loolu moo leen di woon julli ñaata la woon bi muy jógee ci yonent bi bi muy jógee ci yàlla di ñëw ci yonent bi juróom fukk yàlla di ko wàññi di ko wàññi di ko wàññi ba mu des juróom gis nga xiyaamul layli farata la woon qumil layla illa qalila fin wu suratul muzammil lu yàlla wax alima an anna minkum marda wa axaru ba pare mu daal leen koy wàcceel mais farata la woon yàlla daal koy dindi lu tax parce que bañ xam na ne am na ci ñun ñoo xam ne mënul li koor da nga daan woor continuer watti mu siyaama ilal layli amul séeg sa soxna am ñu ko def ñu daal leen koy dindil yàlla ne alimallahu taxtaanuuna anfusakum fa taaba alaykum al aana baasiruhunna wabtagu ma kataba allahu lakum wa kulu wasarabu xatta yatabayana lakum alxaytu al abyadu min alxayti al aswad min alfajiri summa atimu siyaama ila leyli gis ngeen soo wooree ba timis nga dog nga lekk ba fajar gi di waaj a jot nga continuer wooraat arrêté gis ngeen kon loolu yàlla ne ay li ñuy wax ne yàlla bul ñu teg lu ñu àttanul gi xam ngeen loolu mën na ko imagineel bu continuer woon ba léegi nii fuñ jëm ñu ne la julli juróom fukki ràkka ci bis bi juróom yi rek matul mënula mat ñu ne ñu juróom fukk koor gi ñu ne ñu ne continuer leen ko lay yàlla bëgg nañu war naan sant yàlla laa tuxamil naa bul ñu yen maa laa taaqata lanaa bii lun amul kàttanam di ko def yow yàlla waafu an naa jéggal ñu ndeysaan waxfir lanaa yow yàlla yal nag ñu yërëm waafu an naa jéggal ñu waxfir lanaa nga ah waxfir lanaa yaa xafran amen mën na ni xafran min yàlla nag ñu baal yow yàlla warxam naa yàlla nag ñu yërëm anta yow yow yàlla mawlaana yaay sunu kilifa de gis ngeen fansur naa yàlla ñu dimbali alal qawmi ci ay nit alkaafirina yi nga xam ne ay yéeféer lañ gis ngeen ñaan bi nu mu amee doole bi ko yonent bi waxee kan moo nangu ñaan ki yàlla moo ne ko amin allahu akbar waafu anna yow yàlla yàlla na ñu jéllale waxfir lana nga jéggal ñu warxam naa nga yërëm ñu anta yow yàlla mawlaana yow yaay sunu kilifa de kenn du sunu kilifa ku dul yow yow rek ñun de yaay sunu kilifa ñu ne amuñu benn kilifa ku dul yow wan sur naa fan sur naa yàlla na ñu dimbali te nasr nag ci yàlla rek la mën a bàyyi ko wa man nasru illaa minallah te bu leen yàlla dimbalee wa in tansurukumullah fala ghaliba lakum bu leen yàlla dimbalee kenn mun leen a gañe waaw kon nag yow yàlla fansurna yal nag nu dimbali alal qawmi ci ay nit alkaafirina yi nga xam ne ay yéeféer lañ kon mbokk yi aaya yaa ngi noonu ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangul nu ko yi ci jub ci yàlla la bàyyeekoo bu amee ay njuumte ci ñun la seytaane la bàyyeekoo ngi jéggalu suñu bakkaar di leen ko jéggalul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yaakaar naa baxara bi firi nañ ko ñetti atam